waaw tey responsables fi daje responsable qui a ngi fi nga xam ni assemblée générale la forte mobilisation qu'il y a eu aujourd'hui à Rufisque nous avions prévu des ko sax salle mais ça a ci salle les populations les électeurs les militants de Benoît se sont déplacés vous avez vu tous les responsables qui sont là donc l'olu, li ko waral le Sénégal dafa am chance am ci pour le président Macky Sall mu liggéey liggéey ci fànn yëpp nag ci plan Sénégal émergent xam nga ni bi muy soog a ñëw xuyu kamat da doon am xuyu kamat amatul 500 mégawatts 1200 1700 mégawatts léegi xam nga bi muy soog a autoroute yi barewul woon 32 kilomètres am nañu ëpp loolu ak li nga xamante ne la def ci wàllu pont ci wàllu autopont ci wàllu port ci wàllu aéroport ci wàllu école yi ci wàllu université yi L'olu mu def lépp nak filets sociaux yi moom la de moom la ci boole euh, couverture maladie universelle carte égalité des chances mais également euh, bourse de sécurité familiale euh, donc loolu lépp dans un cadre de paix et de sécurité nga xam ni aar na suñu réew looloo tax bi nga xam ni na sax présenté waat mu ne du ma ko def ñu ko ciy gërëm nag parce que c'est un très grand homme qui dépasse même le Sénégal au niveau international ñëpp ko teg bopp léegi alors nous avons parce que nous avons ko nous avons premier ministre qualité pour continuer à Sénégal Il e à l'horizon 2035 avons émergence nous avons phase de parrainage Nous avons lancé le parrainage au niveau régional du passé premier département yi pour parrainage yi jot nañu suñuy fiche séddale nañ ko ci département bi képp ku ci war a am di nga ko am ci communes yi liggéey nag liggéey bi des liggéey ko def dans les jours à venir nous avons communes les 11 ñu réunion pour commencer parrainage bi sous la supervision de tous les responsables ici présents Nous ngi leen di gërëm ma ne ñun dinañu parrainer lu mat ko ci département bi c'est un objectif minimal li ñu bëgg nag moo ñu dépassé ko sax mais objectif bi loolu la jërë ngeen jëf